bi dal seen kaw euh, di leen jaale seen doom ji yàlla na ko yàlla yërëm te xaare ko àjjana exactement est-ce que mën nga ñoo wax ni mbir mi demee. ah man dama tëdd fii démb rek ñu oo ma téléphone sama yaay yónni gorom ne ko waxal Binta mu ñëw limaan dañ koo jam ma jël oto génn ànd ak tantam ak ay magam ñu dem bi ma demee ma fekk ñu tëral ko mais ko jam dafa daw falaa fekk sapeur nag ak police ñu laaj ma année bi mu juddoo laaj ma ma wax leen ah man de dama koy ñaanal yàlla rekk mu xaare aljana ndax doom ju ma yërëm la fu mu dem sànce suñ ko joxee xaalis bu dee dañ ko faa jox junni su ñëwee juróom-ñetti téeméeri maa koy lekk barki démb ma koy tooñ ma ne ko Ili manœuvre nga bëgg mu ne ma yaay am rek mbaa dee teg ci rek wala dee ci anam bu bu rafet nag loo ci ma dégg ci dara yaay ma ne ko tooñ naan ko boo bëggee jabar nii ngay def da ngay dem liggéey mu ne ma yaay ba mu juddee ba tey damay liggéey dama amagul sens rek ma ne ko yàlla baax na kon yow daal euh, li nga ci am mooy que ni da ngaa jékki-jékki ñu woo la ne la dañ ko jam. exactement est-ce que mënoon nañoo xam moom ñaata at la am. moom am na 26 ans. amoon na jabar wala amuloon jabar. amul jabar amul doom. exactement lan la loon liggéey. vulganisateur la doon def mais def ko arrêté woon di def maçon bi mu jógee ci maçon bi mu dem kër amet xalifa ñas moom moo yore woon seen nag yi foofu moom mu fa la nekkoon ci koor gi nag mu feebar ñibbisi booba léegi demoon waaw. maanaam ki ko jëm tey jii ki ko def jëf ju ñaaw ji est-ce que mën nañoo xam ñoom ñaar dafa am leneen lu ñu jote woon avant wala. mosuñoo jote dara. kooku bànd bu nekk ca koñ ba la rek démb rek am na ku mu jam ku dul kii bàndi la rek bu nekk ca koñ ba lu ko neex lay def parce que nit ki mënoo ko ñëw fekk mu toog looy def fii mu na la diw laa xaar nga saaga ko ndey mu na la heure bu ma fekkee fi saaga ma ndey bu ma saagaat loolu moo leen boole ñu xeex mu dugg seen kër génne ciseaux jam ko yaayam ne ko dawal li ma gën a naqari ñu ko fekkee ñëpp dañ ne yaay moo ko ne tëbal miir nga daw. moom jàpp nañ ko. jàpp nañ ko tey ci suba xam naa ne de ba mu juddoo ba léegi mosuma ko àtte xeex jàpp nañ njàmburam kër gi bu fi duggee di lay def nit ñi di reetaan bàjjanam bee toog su ñëwee fekk mu toog mu lëng ko waa bu ndaw njaay ana xaalis bi tooñ ko dem xale yi amu ci kenn problème jotewul ak kenn dara. kër gi kenn mosul na ilimaan lii la ma def du sama wujju du bàjjanam du ay magam ak rakkam kenn mos koo àtte ci kër gi waaw kenn mos koo àtte